ja, jaajëfatee sama m'a bon Mr. Shekla, la ni Brooklyn New York gars tay de ñu féliciter encore une fois les Lions président Sonko ñu koy féliciter président Makisala, Sall ñu féliciter le ministre Matarba, ñu koy féliciter mais li tax yëf yi gën ñu neex moy ne de yeewu tay dégg né Macky Sall. dafa invité Ousmane Sonko ak yeewu askan wi pale ba ngir ñu teeru suñu jàmbaar yi suñu gaynde yi loolu nag ñu ngi koy rafetlu lool lool lool ngir man nee naa ndam bi ndamu Sénégal yëpp la. c'est vrai que c'est vrai que ñu bëri yéenewuñu woon Macky Sall ndam li ndax xam nañ ne mun am na nu muy demee mu politique ko. yaakaar ne gagné nga coupe d'Afrique rek que léegi ça va da ngay def troisième mandat sénégalais yi dootuñu maire dootuñu wax ci élection buñ ko sàccee ñu bëri loolu taxoon ñu bëri dañ ñëwoon sax bu ñu sañoon Sénégal sax du gagné coupe bi waaye tey moom la defe naa loolu kenn waxatu ko ndax bu ñu gagné woon Sénégal dina ñaaw lool ci Sadio Mané dina ñaaw ci Aliou te kenn yéenewu leen loolu ndax ñëpp xam nañ ne Aliou bu jëluloon coupe bi. ñu bëri dinañ wax ne nañ ko fi jëlee mais man dama ne Aliou Cissé même bu jëlul sax coupe bi entraîneur la boo xam ne c'est un des meilleurs entraîneurs d'Afrique kon nag tey ndam li ndamu Sénégal la ndamu Sénégal la te ñëpp ci war a kontaan muy waa Pastef muy waa Macky sàll muy ñëpp Macky Sall nag bu fekkee ne man sax dama ko xalaat démb dama ne lii du yoon démb xalaat naa ko billaahi wallaahi taalaahi dama ne lii du yoon nan la Macky Sall ndara ñëw rek moom mu bàyyi tukki bi mu ndaroon tukki fële Égypte ñëw ngir teelu euh, gaynde yi te Sonko kenn du ko ci gis loolu vraiment démb maa ngi ko doon xalaat kon nag tey bu ñu yewoo ñu dégg ne Antoine Diome moo jaar ci euh, euh, sëñ Habib Sy sëñ Habib Sy daal di ko wax pros pros mi ngi woon Poroxaan parce que màggal Poroxaan bi du fa mën a nekk fukki fan ci weer wi ci yeeg ñetti fan Magol Porokhane Sonko du fa mën nek ndax fay dem Casamance ñu def ko maire Ziguinchor legui lolo tax Sonko dem Porokhane waaye bu ko abus Sonko bagnul, Sonko bagnul, Sonko dafa nangu ne dina dem palais il va se rendre au palais les gars il va être sur la même salle avec Macky Sall son ennemi juré n'est-ce pas pour une fois on va oublier tous les problèmes on va oublier les problèmes des Casamance des sept soldats qui ont été, euh, euh, qui sont toujours, n'est-ce pas, emprisonnés par euh, MFDC et Sadio, On va oublier l'affaire Adir Sar. On va oublier les élections. Pour une fois, le Sénégal va communier avec son, ses footballeurs. Gaï, yi nous, parce que nous, nous, nous nous nous, nous, nous nous Macky gagné. coupe bi moom motax té te comme gagné na coupe bi rek waratul liggéey dafa war am 3e mandat sénégalais yi contane nañu sénégal mom li rek lañ bëgg ñun ñu lool dañu bëgg Macky Sall mu xam lu mu xam lu leer ci bopam victoire bi victoire am la ga waaw bu leen waaye yow askan bu leen nexé ñun suñu victoire la ñoo ñom ñoo jik Sonko Sonko mo leen jig ak Sonko mo leen yew lu leen nex ngeen wax ko mais niñ waxante deug victoire bi victoire Macky Sall la victoire u euh, Euh, Matar Ba la ndax Macky Sall dafa sonn boo gisee xam naa deful woon sax conseil des ministre boo euh, kii remaniement ba léegi defarul euh, gouvernement bu bees xëy na final bi la doon xaar xëy na final bi la doon xaar pour defar gouvernement bu bees te bu ñu gañe Sénégal tey dañuy yeewu rek ñu ne Macky Sall defar na gouvernement bu bees pour nit ñi fàtte football bi xam nga nekk ci politique. mais comme tey politique la gouvernement bi Macky Sall dina ko dàq ba ci kanam xam naa ngir lii Macky Sall daf ko soxla woon. ndax Macky dafa sonn Macky dafa sonn dañ ko gagné ci ay élections yu metti Macky dafa sonn ci affaire góor jigen biñ ñu koy yuuxu Macky dafa sonn ci xaalis yi nga xamné ay DGM ak ministre dañ ko euh euh sàcc kon Macky Sall tay buñ ko gagné won adinam day tukki nañ waxante deug Macky Sall buñ ko gagné won adinam day tukki mais nak heureusement pour lui heureusement pour le Sénégal Macky Sall gagné na waye gagné na du ta du tere Sonko nek président 2024 Macky Sall gagné na du tere ne dina defar euh, euh, élection député te buñ ci démé mu jaar yoon yow askan bi dina nangu assemblée nationale. légui nak Macky Sall woo na Sonko est-ce que wo bi daf koy wo ni rek pour saral parce que gis nañ ñu fi dalon ci Covid bi ñu wo len <coughs> wo ñëpp ci Covid bi Sonko dem Sonko bu demul won dañ nan dafa iñaan il est méchant n'est-ce pas motax mu dem waye ba mu démé gis nga. 1000 milliards ñu dajale ko fan la 1000 milliards jaar ñu naan Mansour Faye mo ci def li mo ci def la lu mel non nak lañuy bañ tay mu amaat palais buñ démé palais na Macky Sall def discours rassembleur Manam, Sénégal drapeau yi ñu ngi ci mbéd bi le 8 mars nit ñi di xeex ak policiers yi waaye le 6 euh, février n'est-ce pas tay la lan tay le 7 février bu len fàttali ne daaw le 6 février ci lañu doon jéem a woo Sonko ci lañ ko doon jéem a woo su ma juumul defe naa le six la woon xale yi dem kër Sonko ne kenn du ko fi jëlee kon ren bu ñu ñëwee anniversaire anniversaire ñu am ndam lu mel nii <clears throat> Macky Sall dafa war a xam ne yàlla moo ñu tàcc yàlla nag bu la tàccoo da ngay fecc ne su mujj rafet affaire Adji Sarr fii la ñu war a jógee ñu fàtte ko ba faw affaire sàcc élection fii la ko war a jóge ñu bàyyi ko ba faw affaire luubal xaalis fii lañ fi war a jugee ñu bàyyi ba faaw affaire complot fi lañ wara a ñu bàyyi ko bàyyi ko ba faaw ñun loolu la ñuy digal Macky Sall léegi nag ñu ngi xaar bu ñu démé palais ndax Sonko dina jël parole ndax opposition bi dina jël parole xamna né du neex parce que Sonko moom bu sañoon du nekk ak fenn ak Macky Sall Sonko bu sañoon du dootul tok ak Macky Sall ci benn salle Macky Sall bu sañoon dootul tok ak Sonko ci benn salle mais nak dañuy ñaan Yalla mu nekk lo xamné dafa sincère ci côté Macky Sall gis nañ leen demb ñuy génn lu gaaw gaaw Youssou Ndour Marème fay Sall di génn ci tali bi naan dafay jubilé waaye dégg na xale yi lu ñu ko wax xale yi nee nañ ko waxal sa jëkkër mu wàññi ceeb bi Marème Faye Sall waxal sa jëkkër mu bàyyi gi mari Sagna waaw loolu la xale yi wax xale yi nee nañ Marème kontaan nañu de waaye waxal sa jëkkër mu wàññi ceeb bi waxal sa jëkkër mu bàyyi Guy Marius defe naa loolu message boobu on ne pas avoir un message bu un peu plus clair mooy bugguñu Macky Sall di jaay doole continuer di jaay doole Antoine Diome dafa mel ne comprendre na loolu moo tax élection yi ñu defar ko élection yu baax macha allah mënoon na gën a baax gaa mais defa nañu élection yu baax ñu gagné ñoom ñu nangu Aliou Sall ñu gagné ko géej waaye ñu nangu ñun loolu la ñuy wax man ma ba mu ko defee dama génn ma félicité Antoine jomm démb am na samay abonné yu naan ma Mister Shake pourquoi ngay félicité Macky Sall pourquoi ngay félicité Matar Ba ma ne leen ñu man ñun bu ñu gagné woon coupe bi dañuy dal seen kaw dal yu metti bu ñu bu ñu gagné woon Sénégal. dañuy dal sen kaw dal lu métti mais comme ñu ñoo gagné il faut que ñu féliciter len soxor baaxul li ñi ñaan moy victoire bi yàlla na jik Sénégal ndax lu gaaw gaaw amna juroom ben nit yu ci dé ñi accident amna kenn ku am crise cardiaque ñi ay ay auto nekkon ci auto accidenté ñi ay ay scooter kon nit ñi il faut que ñu def très attention ndam bu ñëwee da nga naan yàlla na ma jik yàlla na ma jik parce que la malédiction du pétrole dafa am la malédiction la malédiction de la euh, Coupe d'Afrique aussi dafa am comprendre nga waaw ñun daal li ñuy wax rek mooy Macky Sall yéene nañ ko victoire bi waaye bu yaakaar ne sénégalais yi ñuy nelaw parce que gagné nañ coupe d'Afrique que ne bu bu bu joxewul kàttu xale yi xale yi dinañ ko bàyyi dinañ ko ci bàyyi. bu sàccee élection yi xale yi dinañ ko ci bàyyi affaire góor jigéen yi xale yi dinañ ko ci bàyyi aussi aussi euh, euh, euh, nu mu tuddati waaw élection yi surtout élection yi liggéeyu xale yi. loolu la makk Sall war a def ci boppam démb comme ni la ko waxee Marème Faye Sall ak Youssou Ndour gars yi ngeen baal ma taw bi comme ni la ko waxee Marème Faye Sall Marème Faye Sall ak Youssou Ndour gis nañ leen ñuy def seen caravane mais gis nga seen caravane yàggul parce que xam nañ ne bu ñuy nekkee ci mbedd mi xale yi dañ leen di yuuxu pendant ce temps meanwhile ñu gis proche mu def mu def caravane presque une heure de temps

opposition bi non lañ ko wara xolé que Sénégal bu bees lañu am gis nga suñu équipe bi ay xalé ñoo ci nek gis nga Sénégal gagné Coupe d'Afrique pour la première fois gis nga Sonko ñëw pour la première fois ñu gagné Macky Sall ci élection donc opposition bi ñom non lañ ko wara xolé buñu bu wax rek né ah, victoire bi euh, euh, buñu sañon Macky Sall du gagné li benn signal fort la xalé yi gën nañ ci mbedd bi gis nga ni ñu fessé mbedd bi wané né ñom ñoy réew mi te gis nga sëñ taxaw boo gisee mu ne bu kenn génn Touba bu kenn génn Mbacké di célébrer parce que ñoom bugguñu xale yi di génn di wane seen doole xëy na loolu la xam nga mais fii xale yi wane nañ seen doole pour wane ne Macky Sall ne dëkk bi changé na ba faw affaire aji Sarr bi nañ ko jël ñu teg ko ci suuf Sonko ñu delloo ko passeport am gis nga le huit mars li fi li fi jotoon am duñ ko mës a fàtte duñ ko mës a fatte Macky Sall moo war a muus mu xamne yalla moko taccu mën na jaaré ci ñu bal ko mu balu sénégalais yi mu humble mu tuub mu balu comprendre nga li ci dess ci ñaari at yi mu doxal nu mu wara a bu waree ñak assemblée ñak assemblée bu boba ñun ñi ñokay ñëk taccu ñun ñokay ñëk féliciter gis nga ma man man dama néwon bu Macky Sall nango gagné nañ ko Dakar gagné nañ ko euh, Guédiaway té dess na Pikine tamit xamuñu nak fa lay mujj mais dama néwon bu Macky Sall nangoo man damay génn ma félicité ko ma ne ko Macky Sall bravo nee naa Antoine Diome bravo am na ay ay patriotes yu naan monsieur Cheikh waroo gërëm Antoine Diome waroo gërëm Macky Sall ma ne dinaa leen gërëm. lu tax ñu ne ma waroo ko gërëm parce que ñu ne ma kart yu bëri dañ ko téye ñu ne euh, Pikine na ngi nii ñu sàcc ko ñu ngi ne liste yu bëri dañ ko éliminer ma ne loolu yëpp dëgg la dëgg la mais sàcc bi mënoon na gën a euh, euh, bëri ba bulletin yu bëri manqué ci yenn bureau de vote yi ba Barthélemy Diaz. tey victoire am wala euh, euh, euh, am Ahmed Aydara seen victoire ñu koy werante looloo taxul ma félicité leen ci jéego yu ndaw yi ñuy def li ci des nag yow askan bi ñoom ñooy xeex seen xeex bu ñu ñàkkee fayda Macky jaar seen kaw te lii sax gagné coupe d'Afrique bi sax dafa baax ci yow askan bi ndax dinañ xam ne Macky am na ndam kon ñoom il faut ñu xeexaat pour nangu ndam li ci Macky Sall parce que Macky Sall fi mu nekk nii am na ndam xam nga fii ak fii weer kenn dootul wax ci lu bëri dootuñu ko wax. te Sénégal tey bu taseetaat Égypte gagné ko coupe du monde Macky itam day amaat beneen ndam kon yow askan bi lii baax na ci ñoom baax na ci ñoom ñu génn ci terrain bi ñu xeex li ñu war a xeex waa sàmm jikko yi ñoom xam naa ne lii da leen di gën a day gën a tax ñu gën a gën a defaru parce que temps yi dañu dañu jekk woon Macky Sall mais comme Macky Sall am na ndam Antoine Diome am na ndam fi mu nekk nii ku yoo xoox góor jigéen dañ naan la eh, eh, eh, bàyyi leen ba ci kanam loolu lañ leen di wax comprendre mais en tout cas Macky Sall ñun daal ñu ngi koy avertir bu mu jël lii mu koy politiquer politique bu ëpp bu mu jéem a nax nit ñi parce que xale yi léegi dañoo yew xam nga du ay coupe d' Afrique mooy développer Sénégal ñun suñu pétrole la ñu bëgg mu jaar yoon dañoo bëgg Sénégal mel ni Dubaï mais ay coupe d' Afrique ñun intéressé wuñu parce que coupe d' Afrique dinañ ko gañe gañewaat ko waaw man yàkkamti ma woon man yàkkamti ma woon parce que man dem nañu final ñaari yoon man xam naa ne équipe bu ñu am c' est la meilleure équipe d' Afrique ñun waxuñu sax coupe d' Afrique coupe du monde la wax comprendre nga sax mën nañ ko jëlaat. ñun coupe d'Afrique yitteeluñu xale yi nag il faut ngeen yeewu waaye boo leen fi nekkee di leen di jéem a nax ci ay coupe d'Afrique wala di ji leen di leen jéem a nax ci ay affaire làmb mais bu boobaa c'est votre problème c'est votre problème dëkk bi dafa métti dem maa ngi seetaan Ndongo Diop Pastef muy wax dëkk bi nu mu méttee mille francs ñi nit di ko ñaan mille francs mu may ko mille francs mel ne mu mel ne un million la ko may kenn ko kaañ dem ci may ga ma nga jënal ma fukki dërëmu mburu waa ji yaakaar ne da koy dóor mu dem ci may ga effectivement daf ko jëndal mburu xaaru sax bër mu commencé ko lekk naan ko fi mu nekk nii bu ma demee kër ga li ma amoon li ma liggéeyoon tey moom laa yónnee soxna si mais man suma ma demee du ma am lu ma lekk loolu moo nekk Sénégal léegi nag victoire bi dina tax ñu fàtte mais nag bu leen fàtte l'essentiel Ousmane Sonko moo ñu war a yeewi Macky Sall na gagné coupe du monde waaye daf ñuy abal 2024 wax yëpp loolu la te assemblée daf ñuy koy abal le 31 juillet te yi kenn du ko dàq. wax jëpp loolu la wa boo amee fulla yow askan bi da ngeen war a gën a defarwaat mais boo leen ñàkkee fulla Macky Sall Youssou Ndour Marème Faye Sall gis nga leen démb ñuy caravane dinañu nangu suñu victoire dinañu gën a nelawalaatal xale yi ak ay concert ak yu ma xamul te bu boobaa yéenay perte ñun ñu ngi Amérique de ñun ñu ngi fii macha allah ñu ngi sant yàlla te suñu xeex booy xool ñun li ñu bëggoon rek mooy xale yi yeewu te comme xale yi yeewu nañu li ci des nag mooy ñu ñaanal Sonko mu jël nguur gi ñaanal Macky Sall dafa mel ne léegi yaru na Macky Sall dafa mel ne yaru na loolu la ñuy ñaan bu dee loolu la alhamdulilah bu mu fi nekk di jéem a comploter na dem ak jàmm ak salaam gars yi like leen partage leen abonné leen Mister Shake la bu ci kanamee mën na am ma def live parce que tey moom même buy taw sax am na nu muy demee ma def live parce que c'est un jour historique jaajëf à tout à l'heure peut merci